à toutes et à tous et merci de nous retrouver euh, sur la TFM pour euh, soir d'info ñu ànd rek ni ñu koy defee euh, saa su nekk euh, ñëw ci waxtu bi indi ay ponk yoo xamante ne ni daañu ko waxtaanee ci bi penc bi ak ñi nga xam ni jàpp nañ ni seen xel màcc na ci fànn boobu di ci profito di leen nuyu di leen ziar bu baax a baax leen jox seen wàccuwaay tey nag ñu am taxawaay boo xamante ne dañ koy jagleel lii di mbirum boulangerie bu ñu nee boulangerie xel yëpp dem bi ñi nga xam ne ñoo sant loo Camara wala Cissé euh, yenn saa yi ñu ñu sax saalit ndax it gis nañ ne euh, lu ci ëpp bu ñu waxee ne augmentation war na am ci euh, mburu bi ñu gis ñenn ñu am ci benn taxawaay waaye lu ci mënta am daañ ci teew ci kanam ak ki nga xamante ne sunu gan euh, di euh, Amadou Gueye euh, nekk le président la fédération nationale des boulangers du Sénégal dina fi teew ci kanam tuuti bu yegsee ñu gën a yaatal ci fànn boobu daañu ñëwit ci wàllu xibaar nu ñu koy defee saa su nekk ak la rédaction ci ñaareelu pàcc bi ñu ñëw waxtaanee li nga xamante ne moo di 31e congrès bu notaire yu nekk ci Afrique bu ko defee président chambre de notaires du Sénégal teew fii ñu gën a yaatal li nga xamante ne rek tukkee na fa mu ngi le 4 octobre incha allah euh, may ànd tey ci plateau bi ak Pape Djibril Fall Pape maa ngi maa ngi lay fay bu baax euh, Aram di nuyu sénégalais ñuy seetaan si biir euh, réew mi ak si bitim réew euh, di ñaan yàlla encore une fois waxtaan bi am njëriñ. waxtaan bi am njëriñ bi yoon ci mburu bi la ñuy waxtaanee ni loo xamante ne ni gis nañ ni démb commité national de validation bi waxtaanee na léegi ponk bi nga xamante ne soxal na mbiru yi nga xam ni mooy mburu bi. mburu bi nag ay prix yu bëri nemmeeku nañ ko ci. Mm. waaye bu bees bi bi nga xamante ne dégg nañ ko ci moo di biy jar 200 francs Euh, mmh. tey pesé 250 grammes. mu di mmh. loo xamante ne boulangerie yàgg nañ ko mmh. euh, yuutu. doon wax ak kilifa yi pour ñu mataleen ko mel na ni euh, lañ doon yuutu am nañ waaw xam nga li am solo rek aram mooy que ne encore une fois bénéficiaire bi moom moo am solo mooy utilisateur finale bi mooy. citoyen bi mooy consommateur bi kooku moom moo ëpp solo ci débat bi ak ki nga xamante ni aussi moom mooy sénégalais bi jóg euh, dugg aussi ci euh, ci ci ci dynamique production bi aussi kooku aussi nan la ñuy def ba protéger ko encore ak état bi nga xamante ni moom moo war a ñëw nag réguler tout ça donc pendant longtemps débat bi am na à un moment wax nañ ne filière la boo xam am na crise boo xamante ni traversé na ko euh, pointé nañ du doigt li nga xamante ni moom lañ doon produire huit millions de baguettes par jour xam nga ne loolu c'est pas c'est pas du lu tuuti euh, wax nañ ci aussi consommer local à un moment donné ñaata lañ ci war a def ci farine ak ñaata lañ ci war a def ci blé donc ay question yu bari yoo ak sa participation même dans le produit intérieur brut donc ay débat la boo xamante ni je pense que ne au-delà même ci homologation prix wax ne war a jaayee mais même boo prix bi lii la war a nekk hausse la wala baisse la lu ci nekk war nañ ko waxtaanee expliquer hausse bi expliquer baisse bi mais li ma ci jaaxal rek avec la fédération nationale des boulangers mooy souvent su hausse amee coow dina bëri mais baisse amee kenn du leen dégg. boobu noonu ndax yenn saa yi ñu dégg ci fànn yu bëri. moo xam gasoil bi. Mm. mun na mm. baisser wala prix euh, sac de la farine wala sax électricité bi. parce que mm. am na période boo xamante ne n nañ dañuy wàññi 10 pour cent. Euh, ci euh, facture yi. nekk na loo xamante ne nii day répercuté benn yoon ñu ne ñoom it dañuy wàññi. justement donc loolu aussi encore une fois c'est la régulation régulation bi nga xamante ni ministère du commerce moom moo ko war a jiite foofu la nekk nga xamante ni jamono bu nekk et li gën am solo mooy communication bi. Mm. d'habitude nit ñi dañuy wax ne Sénégal dëkk bu ñu bu neex waxtaanal la ndax fii ngay ñëw fekk fii dëkk bu tudd xaar yàlla xam nga ñoon jafewuñu ay mbir <laughs> waaw wala jàmm moo gën jàmm gën donc xam nga ñoon jafewuñu ay mbir mais waxtaan bi ci war a am souvent moom mooy des ndaxte nit ñi bu mbir mi leeree ci ñoom rek bu information bi disponible processus bi nga waxtaan ko ak ñoom parce que souvent li ñuy li ñuy gis mooy dafa mel ni sax ci biir concertation yi souvent da ngay gis l'autorité choisit ses interlocuteurs te d'habitude foofu la problème bi di am euh, processus bi dañ koy escamoté wala mu biais wala mu biaisé su boobaa li ñi ci war a bokk yëpp waxtaan ci duñ ci bokk waxtaan te loolu mooy débouché ci li nga xamante ni moom mooy ay donc encore une fois filière la boo xamante laaj na réorganisation laaj na assise laaj na waxtaan parce que boo gisee li nga xamante ni yëpp de valeur bi ñi nga xamante ni yëpp ñoom ñoo ciy dund ca kay bay ca tool ba ba ci ki nga xamante ni moom mooy produit ba ci distributeur bi mhm. il faut ñu waxtaane ko mais il faut aussi ñu waxtaane ñi nga xamante ñoom la ñuy ci boulanger yi parce que ñoom aussi euh, wax lii wax la ca des ñooñu it ñaxtu nañ fi ba sonn aussi di def euh, am ci di euh, nekk en phase avec la législation qui est en vigueur dans le pays donc loolu yëpp aussi foog ñu waxtaane ko. alors les conditions d'hygiène hmm. souvent nit yi euh, décrire ko nekk na euh, point boo xamante ne souvent dañ ci dégg tamit nit yi hmm. euh, di ko faral di fësal. Hmm. mu di loo xamante ne nit jar na bàyyi xel. ndax souvent yan saa moo xam ay article wala dara yu ñuy gis. bu nit ki décrier wul nañu defaree mburu ba ma ngay wax anam yi nga xam ne boulangerie bi moom la nekkee. wala yenn boutique yi sax mën naa boo fa duggee doo jël. bonjour. Amadou. <laughs> heureusement ba Guèye nga sant. parce que nu mu sant nga de Guèye. ah ça c'est un problème mu santoon Cissé. a mburu waaw mburu mburu mburu. alors le président de la fédération nationale des boulangers du Sénégal dalal ak ci am. tout d'abord merci hein, de l'invitation mais maa ngi wu si retard bi. Euh, indépendamment volonté. mais maa ngi wu. wala nga doon xaar ñu lakk mburu. wala nga doon xaar ñu lakk mburu non non pas ça c'était des embouteillages ak en réunion avec les boulangers quand même euh, jusqu'à un peu tard quand même. Très bien. Alors, le comité national euh, de la boulangerie def nañ démb waxtaan daal di euh, fan yi sax laay wax génn ci ak ministre du commerce mhm. Aminata Assome Diatta euh, ñu ne léegi baguette bu 250 grammes bi tey jar 200 francs validé nañ ko mu nekk loo xam ne yàgg ngeen ko wax ne bëgg ngeen ko ñu taxawal ko tey ndax mburu bi daa yokk wala déet. non dama bëgg a préciser lu clair mburu yokkuwul euh, dama bëgg bu ñu jël rek di di ñëw rek wax mbir mi fu mu jógee ñëw rek wax la fin bi. Hmm. histoire da koy da nga koy comprendre depuis des années coow mburu dafi bëri récurrent. oui. Euh, ba li dernièrement ñu jëloon euh, avril 2018 bi. ñu dem arrêt de position mais loolu ñu ni kon léegi pour régler définitivement le problème la pour repartir sur nouvelle base ñu ni kon nañu def la structure du prix du pain structure prix wu euh, farine bi ak la nouvelle réglementation mu doon suñu mbëbët taxaw l'ancien premier ministre bi fi nekkoon dëggal ko jox ñu institution pour ñu dem def ko joxoñu trois mois. Mm-hmm. ñu dem si trois mois yi quand génnee institut prix farine mais blocage bi ñu am mooy structure prix pain bi mu am blocage maanaam dañoo dem gis ñun un gramme un franc état bi gis un gramme zero quatre-vingt-quinze mais bi ñu demee di restituer devant l'autorité principale bi mhm. moom d'accord woon ci loolu mu nekk une polémique maanaam xëccal fii bàyyi fii coow li bëri léegi nag dama lay dañu jàppoon ni rek ñun euh, déduction day jeex ñu defaat beneen proposition ñu continué waat négociation yi bien que demoon nañ ba génnoon table négociation yi. mais demaat table négociation ñun léegi kon nañu defaat ay nouvelle proposition ñu vraiment gën a toggaat affaire bi pour gën a leeral askan bi yenn yi ñu ni kon dès l'instant que ñun ak yéen d'accord ñu si le prix au gramme mais am na loo xam ni moom bu ñu ko defee. dana mën saafara lu bëri. parce que dafa am lu ñu wax fii anarchie total loo xam ni vraiment une grande partie c'est des boulangers benn partie bi état la. ñu ni kon voilà la la la mm-hmm. bi mooy kon en attendant dugal pour la liberté du consommateur ak du choix du consommateur ni leen proposer un nouveau format. Ah, nouveau format yéen gënoo leen gis seen bopp consommateur dégg nga expliqué nouveau format lu mu jëriñ mooy 230 euh, de ça la ah. Hmm. mais ñu dem d' accord nañu léegi 230 grammes à 200 francs. d' parce que ñu demee si structure prix pain parce que bu ñu defoon la vérité uniquement des prix. Hmm. quand aujourd'hui la baguette de 150 grammes bi 190 grammes moo jar moo jar 200 francs bii nii. bi mooy baguette 150 grammes. appliqué wu leen la VDP la VDP n'est pas appliquée attention. baguette bi mooy jar 150 francs mooy jar moo poids 190 grammes si on avait appliqué la vérité des prix lii moo doon jar 200 francs état nag na nga woon dégg loolu mu ni kon nag dañuy def benn compromis yéen da ngeen ni bu ñu leen da taxasalee secteur bi assainissement bi da ngay gis bopp état gis suñu bopp consommateur gis suñu bopp ñu ni ko waaw mu ñu lan la ñu ne ko léegi boulanger yi dañu ubbi nu mu leen neexee gars yi jaay mburu nu mu leen neexee ñu ne kon loolu il faut mu dañ. contrat de performance la woon. voilà léegi non léegi yi ouvre. non c' est que euh, yow da nga ñëw ubbi sa four. Mm-hmm. sans autorisation ah, sans rien. léegi nag ñu ni kon balaa ngay ubbi di four. Mm-hmm. tu es soumis à un régime d' autorisation. Mm-hmm. les boulangers yi nga xam ne existé nañu aussi. dañu nekk soumis à un régime de déclaration. pour ñu xool yow noo jaar bu ubbi. ak noo mel. pour ñu mën la jox un pour mën nga man léegi li ma lay laaj. muy benn monsieur Guèye monsieur Guèye li ma lay laaj pour rester ci question bi foofu pour pour nit ñi gën a mën a comprendre. Mhm. mooy dafa mel ni ci compromis bi nga xamante ni bëggoon ngeen ko ak état. Mhm. te encore une fois ñun li ñu gën a intéressé c' vrai que yéen il faut ngeen génn ci parce que ay sénégalais yuy entreprendre ngeen. man damay dundal sama njaboot. waaw mais consommateur bi aussi Euh, comme benn contrat la woon de performance yéen ngeen jël engagement état jël engagement yéen dans cette affaire là lan moo ci yéen engagement yi ngeen jëloon ak ndax respecté ngeen ko ak état aussi engagement yi mu ci jëloon ndax respecté na ko. non non dama ne la anarchie moom dafa mus a am. donc état état bi mooy euh, am na fi Sénégal dafa bëri na affaire yaa ngi wax maa ngi dégg bi nga doon wax assise. Mm. ñun ñoo def en 2017 avec nos propres rien n'est appliqué léegi nag ñu demoon ba amoon crise 2018 bi ñu ni kon nag nañu xaw dugg sax lii c'est des propositions yu assises yi woon sax maanaam léegi na ci assises yi. bokkoon na si ko moo ko ñëpp ñëpp ñëwoon tous les acteurs consommateurs yi mhm. léegi nag. ci ñaari formats yi ci ñaari formats yi léegi. léegi kon compromis bi mooy. Mhm. d'abord man j'ai toujours dit. Mhm. aujourd'hui tey soo doon jël saaku farine. di ko jaayee mille francs. état bi nit ñu mburu mii jaay ko 500 francs mhm. bii laa wax bu doon jar 500 francs mhm. farine jar euh, farine jar 5000 francs anarchie bi su continuer ñu ñëpp ay amal problème c'est d'autres qui en profitent bi ce n'est pas le consommateur aujourd'hui on vient d'homologuer le 17300 léegi dama bëgg ñu am compréhension boobu mhm. léegi aujourd'hui ce qui est gagnant aujourd'hui c'est que assurance bi ñu am pour que l'application ak l'applicabilité mhm. disposition yi parce que vraiment yéen yàgg ngeen ñu xas naan yéen ay xot rek ngeen ñuy jaay n'est-ce pas yéen seen seen mburu mi dafa salté ay xott ngeen daan n'est-ce pas loolu ngeen wax mhm. mhm. di transporter mburu mi man sax du ma lekk mburu ndax ni ngeen transporter mais effectivement c'est la sécurité alimentaire parce que li ngeen xamul lenn mooy mburu day rey xam ngeen ko il faut que ñu xam ni ay Europe problème bi amoon xaw si lait bu ñàkk feebar yooyu bactéries yu ndaw yooyu mais boo demee si pain yi ni ñu koy defee mais c'est multiplié million de fois et que yi toog di xoolee ñun leen nag léegi lii dafa war a dañ mais doo ñu accepter loolu ñu ni kon ñu proposer leen un pain bu gën a rëy xam nga yéen suñu pain bu gën a rëy pain bu consistant mmh. te même nii même bu dee mu nekk am am qualité non mais day nga aussi dañuy sóoraale mmh. les petites familles quand même yow tey saa boo jógee nga jënd pain bi mmh. yow yow am nga quatre doom par exemple je sais pas pain <laughs> bi nga dafa xott xam nga hmm. deux trois cent francs ngay jënd pour am sa ñaar sa ñeenti doom yi mais bii ni mu yaatoo ni mu kiyee nii hmm. tu peux le couper en quatre hmm. pour permettre nit ki mu gën a diis mu gën a mën na bañ nekk xot ñun foofu la ñu yóbbee askan bi maanaam nga am pain bu diis léegi yow tu as à deux cent francs au lieu de trois cent francs pour deux pains yi c'est gain pour le consommateur. le format. le format mii le format bii 200 lay jar. waaw bii 150. bii 150. man bu ma demee boulangerie bëgg bu jar 150. Mhm. te dem fekk fa bu mel nii bu 200. <coughs> mais comment aujourd'hui yéen mën ngeen jox ay garantie ci ñu xam ni ñun bu ñu demee ci boulangerie bu ñu fa bëgg rek dinañ ko fa fekk. loolu tax ma indiwaat ma ma indi bi. bu 100 francs. pour dire que c'est un faux débat. mais loi concurrence moo ñu permettre loolu man yow consommateur nga. lii xaw na neex woon nag. dégg nga non xëy na diis na waaye guddaay. non non non non. est-ce qu'il y a un contrôle est-ce qu'il y a un contrôle d'accord dégg nga xam nga aussi c'est faux débat xam nga tax pourtant dañu homologué woon mburu 100 francs pourtant boulanger yaa ngi koy def ba léegi mi ngi koy def ah te pourtant ku tax kenn boo ko. ñu koy continuer ko def c'est la même chose soo ma homologué bii ak bii damay def yëpp parce que le consommateur bu ñëwee fi nga mais yow léegi xam nga Sénégal Dakar jox ma ñaari mburu ñaari Dakar si nga mënoo toog mënoo toog trois cent trois cent mètres gisoo une boulangerie mhm. yow su dee la nga ñëw mhm. consommateur bi bi mburu fanweer bi gisu ko si yow ma dem def ko si keneen mais c'est il faut le quand ñu comprendre loolu mhm. consommateurs yi ñooy demander vers le le le en fait le choix mburu fanweer bi mu ngi fi daf fiy des mburu cent franc baa ngi fi pourquoi waxu leen ko pourtant mi ngi fi ba léegi mburu fukki bu taxoo leen ko mburu fanweer baa ngi nii mais pourquoi mburu cent franc baa ngi fi tey xam nga lii lu bees la nangul nañ leen ko bu deux cent bi du lu bees xamul tax du lu bees xamul tax ma du lu bees ngeen commencé ko jaay ci boulangerie lii nii tey ah est-ce que du pour promouvoir ko du ngeen def de telle sorte que bii ngeen di gën a defar que bii que ce qui fait nit ki bu demee boulangerie mun na dem soxla cinquante du ko fekk 200 bi des il est obligé mu jënd bii. non ma jàll actuellement nii sax am na ñuy jaay mburu 200 man mi ngi wax si la bokk maa koy defal li ma constaté mooy nit mburu bi gën a qualité la ñuy la ñu dem jëli ji. Hmm. ma jox la exemple ça je te naa ko garanti. teewul boo ñëwee di nga fekk muy 150 parce que bu ma ko deful maa ngi def 200 mais am na ñu def xam ne 150 kese la ñuy def mais pourtant dañuy ñëw jënd sama li gën a innovant man li ma wax nii du njëgu prix. michu cent 100 200 bi ñaata ngeen ci am yéen jaaykat ah justement euh, pour lu tax ñu gën a demander à ce que ñu dugal mburu format 200 bi. Pape Mbacar dañuy réduire ce qu'on appelle suñu coût de xam nga coût de production industrie bu am solo actuellement nii boulanger yaa ngi tëj mais quand même pour compromis pour compromis tegal ci digg saal bu ñu paree xool pour compromis pour compromis quand même on a accepté nous sommes une industrie war nañu mën a permettre nu ñu defee suñu économie d'échelle par exemple yow su dee da nga ma ñëw ma ni ma léegi mburu bi rek laay liggéey hmm. bii benn saaku bi may génn leen deux cent quatre-vingt-trois mais su ma defee façon bii par exemple poids bi day gën a nombre bi day gën a wàññeeku ba ay 240 n'est-ce pas boobaa non seulement danaa réduire suma temps de travail pour le pour le pour l'ouvrier non seulement danaa économiser suma énergie en électricité et surtout en gasoil mais nous sommes des industries pourquoi pas ñun bokk ci réew mi waruñu gagné ban. ok kenn waxul loolu. mais si si j'ai l'impression que nit ñi. mais néewuñu mburu dafa yokk mburu yokku fi parce que toujours ce pain va exister c'est faire un mauvais procès la au conso au boulanger. Mm-hmm. ni yéen dina ay ay ay vous ne serez pas sérieux demeewuñu sax nga am mauvais préhension nii parce que. parce mooy garantir consommateur bi ne ko mburu bi ah. ñuy wax ne 150 la du disparaître ndànk ndànk ndànk ndànk. est que contrôle est-ce que contrôle bi ci war a am aussi. mu ngi ci am ba nga xamante ni de façon rigoureuse li ngeen waxante ak li ñu homologué. en terme de poids en terme de qualité et en terme de de de xaw ma nan ngeen ko tuddee ci guddaay bi. Mhm. ndax ñooñ dinañ ko respecté lan moo est-ce que instance bu existé ak justement effectivement moo tax mu bëggoon wax ni li ëpp liy gagné mooy c'est la réglementation réglementation bi dañoo créer li ñu wax ay comité dans chaque région. Mhm. ñoo ñoo joxee avis ouverture boulangerie fermeture boulangerie. ñenn ñoo ko créé. mooy comité bi. Hmm. comme mooy sorti concernant 50% comité boobu y aura les boulangers. Hmm. y aura le consommateur. Hmm. y aura le ce n'est pas le ministère du commerce qui joxe comité bi mooy décider a pare ni boulanger bi war naa a ubbi wala boulanger war nañu ko fermer kooku ñu jébal ko gouverneur wala de de commerce bi mu doog a signé signé uniquement mais bi pour démarrer pour encadrer ko dañ ni il ne peut être vendu que si sa boulangerie. wala kiosque. yi nga moom wula boutique aménagée mm-hmm. c'est pour être conforme au décret bi nga xam ne dafa ni mm-hmm. dañu bëgg a aaye jaay mburu ci boutique yi parce que mm-hmm. c'est pour permettre l'hygiène n'est-ce pas bi mu wax n'est-ce pas contrôle mooy loolu léegi nag ñu ni kon lii d'abord actuellement nii pour le moment pour pour dire pour rassurer quoi en fait les Sénégalais que pour le moment il y a il et d'ailleurs ñun dañoo décidé sànq réunion dañuy def une campagne de communication. gën a expliquer waat askan bi ñu bañ a réeroo. parce que kenn ñi am nañu bëgg a xëpp fii. Mm. ku bëgg a xëpp kaan rek di bëgg a xëpp maanaam bu dafa yokk non mu yokkul lépp ngi fi léegi lii aujourd'hui ne peut être vendu. Mm-hmm. que dans votre boulangerie dans votre caisse propre xam nga lu tax dañu bëgg a contrôler la traçabilité du pain. yow tey actuellement nii da nga dem si benn boutique jënd fa mburu parce que mburu boobu boutique boobu mais fukki boulanger jox nañ ko mburu bu amee bu am l'insert foofu kan mooy ban boulanger mooy jël responsabilité sama mburu la d'accord léegi nag su dee yow casque bi moom la mais c'est la responsabilité du boulanger moo tax ñu ni kon ona a l'assurance attention on a l'assurance d'hier du ministère du commerce que ni dana fexe l'application l'applicado mais surtout les sanctions les sanctions vont être alourdies comme nga ñëw di sàcc poids. c'est loolu moom dañoo jël expérience su Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens ñëwoon nañu fi seet suñu boulanger Ivoiriens yi waxuñu seen méthode ñu jébbal ko aussi. ministère est-ce que compromis bi ngeen def wala compromission bi ngeen def est-ce ak état tamit du tax yenn saa yi état sëgg ci loo xamante ni. non amul compromis xam nga fii nii hmm. mën naa wax ni dafa am sax ay restrictions yu garaaw fi mu toll nii y a des propositions yoo xam ni dafa dafa dafa nekk très lourd sur les blancs bu mu la tegaloon texte bi yëpp fii danaan lii moom mënul nekk oui mais arrangement sur les bords moo tax ngeen accepté non arrangement non c'est que dañu bëgg suñu yéen kay moom bu leen arrangé bu tey gars yi dégg ah, nañ leen non non non dañu bëgg une rupture totale hmm. de cette situation là parce que l'avantage mooy heureusement cette fois-ci hmm. dañu nekkaloon en face des fonctionnaires yoo xam ni ils ont ils nous ont compris c'est eux-mêmes ñoo expliqué même consommateur yi l'enjeu que ni il faut mu am rupture ku mel ni le SG secrétaire général ou ministre bi ak Ousmane Ousmane euh, Mbaye bi nga xam ni mooy de commerce ba pare il a encaissé tous les coups nag parce que aussi du yomb woon sans compter euh, Diallo bi nekk secrétaire euh, général du commerce par exemple mais c'est des gens yoo xam ni ils ont encaissé beaucoup de coups sur les boulangers avec les boulangers mais noppi dégluñu parce que dañu meroon mais bi ñu déglu ak tege tey ba trouver solution bi nii dañ ko war apprécier mais kenn waru ko. le vice président euh, de l'ASCOSEN <coughs> Omar moom euh, wax na ni lii du yoon. 200 bi nga xamante ne euh, yéen ko nar a jaayee. Ah waaw xaaral saak farine bi. Ah. su wàccee. Ah du ngeen wàññi. gasoil bi su wàccee du ngeen wàññi mburu bi. électricité bi sànq maa ngi koy wax Pape Djibril bañ ko fi wàññee 10 pour cent yi. Mhm. wàññi wóolu loolu laay waxati dama ne bu ñu revenir si débat boobu xam dinaa la dinaa la d'accord leen ci mais c'est pas un faux débat. non non non la xam nga uh-huh. wax yëpp dafa nekkul. mais ngeen eh, nekkul xam nga mais ngeen déconstruire ko. mais dañ ko déconstruire ba génne un gaz de 95. bu leen wax ne c'est un faux débat non attention dama ne la. Momar uh-huh. Ndao bi ngay wax wala Asko Sène bi ngay wax. Momar Cissé Momar il a participé à toutes les réunions je dis bien à toutes les réunions. qu'on kon y a des instances qui défendent les consommateurs. non dama mais nag aussi mais nag aussi non mais non mais non mais vous m'inciter sur Ousmane Mame Ndao mais il y avait imam Youssoufa Sarr qui représente l'ensemble des des associations consommateurs qui a qui a qui a validé ça qui a donc loolu dama bëgg ñu comprendre ko du benn association seul mooy ñëw di perturber affaire boobu si nga affaire bi déglu ma rek déglu ma si nga si nga non si si non dama ne dama ne la non affaire bi ñoom gis nañ seen bopp dama ne euh. non du question gis bopp ah léegi kon léegi ñoom daal dañu war a daal <laughs> non kenn waxul ngeen ah, <laughs> mais dama ne ko fekkee togg toggaat ko heureusement sànq moo lay dawal ni ko on a mais yow daal jël ngeen on a des fonctionnaires qui ont dem na la actuellement ni ma jox exemple mais gars yi njaay mburu bi 125 ak 100 francs actuellement nii mburu bi nga wax ñu des bàyyi nii gars yi 100 francs lañ koy jaay ak 125 francs. xanaa xanaa bu beesulee. dem na la may non non non bu bees taax dem na la nit ñaa ngi jël saaku mburu dugal si dem si kër yi di ko jaayee 125. ah bon loolu moo fi nekk. loolu lañ bëgg mu dañ loolu amul assurance askan bi. lu ngeen bëgg da ngeen bëgg loolu yéen. léegi bii nii vous voulez vous voulez vous voulez continuer si si si ay yii nii bàyyi leen ngeen nekkee ah. bëgg nañ mu baax mais bëgguñu mu cher commencé ngeen ko jaay wala entrée gul en bi génnagul il faut arrêté bi génn bu arrêté bi génnee ñu doog def campagne de communication gën a expliquer. parce que am nañu ko arrêté boobu du jël ay weer wala. non non arrêté bi kay bu ñu sañoon. la kañ la waaj. non bu ñu sañoon dans la semaine mu génn xanaa nag. bu ngeen mhm. mais dama ne. mais est après dina am évaluation c' est à dire que est ce que a décidé hier de au bout de trois mois. on fait une évaluation. voilà xool question à rectifier lu ñuy rectifier. voilà lu ñu defaat mais mieux encore. on a décidé de faire des séminaires et des ateliers pour les boulangers aussi pour ñu gën a expliquer la réglementation parce que ce sera très lourd pour les boulangers parce que quand même vente pain dans les boutiques il faut koy euh, livraison dans les mauvaises conditions dañ koy interdire ba pare nag lu bees lu génn la normalisation xam nga tey on n'a pas normé le pain au Sénégal parce que tey dañoo la wax ni baguette. Mm, nii la war a dey. l'organisation. baguette dafa war a dem dimension sangam. Mm. pour que contraindre le bon boulanger. Mm. respecter la longueur. tey fi mu toll nii tey. j'ai une porte ma jox la exemple. j'ai une porte dans ce pays. tey bu ma dit la baguette ma def uniquement 190 grammes. je peux le faire avec ce poids là nekk 190 grammes. mais boobaa damay lor askan bi. aram man gis nga li muy wax ni am na solo mais gis nga le contrôle citoyen aussi mais le contrôle citoyen foog mu am ci dëkk bi aussi mais am loolu il faut que waa koñ bi di leen dénoncer tam dama ne dama dañ non sax dañu am euh, numéro vert pour dénoncer les boulangers yoo xam ni mm. ils sont dans le dumping le non respect des poids ak aussi merci monsieur Gaye dinañ ñëwaat ci yow si si kanam léegi léegi ñuy euh, Amadou Gaye président fédération nationale de boulangers du du Sénégal euh, sànq ñu ngi wax ci euh, format bu bees bi nga xamante ne ni kilifa yi accepté nañu pour ñu introduire ko ci ci ci boulangerie ndax tey format boobu noonu boulanger yëpp ànd nañ ci ndax am na période boo xam ne gis nañ fi yenn ñu bokk ci regroupement de boulangers du Sénégal ne ñoom yokkute lañ bëgg te tey dafa mel ni yokkute amul mais format bu bees la ñu intégré ci ci mburu yi. mën naa rassurer nit ñi parce que démb conseil national de la consommation boulanger yooyu teewal nañu donc euh, RBS boobu ngay wax ñëwoon nañ teew nañu donc participer nañu affaire bi donc je pense que dañ ko valider conseil national donc je pense que pour loolu moom amuñu suy tiitukaay parce que yaakaar naa ne ñun ñëpp ñoo bokk benn bëgg-bëgg mooy réglementation bi ñu defar ko et que aussi ñu mën a permettre euh, boulanger bi mën a jox askan bi mburu format ni ñu ko bëggee donc loolu moom mën naa rassurer ni amul problème je pense que euh, compromis ñëpp def nañ ko. wax nga sànq ci organisation bi ci secteur bi. Mhm. Euh, fexe assainir ko. Mhm. Euh, moo xam hygiène la. Mhm. moo xam formation la. fànn yooyu yëpp. ana nan la ñu mën a tey rassurer ki nga xamante ne mooy jënd ba xam ni yooyu yëpp dina yemb ba ñu bañ a yaakaar ne rek ku jënd mburu yenn saa yi ngay dute sax ndax mën nga ko lekk wala ndax nañ la ko jaayee. mais justement loolu la ñuy bëgg éviter moo taxoon nguur bi jël na ay matukaayam yu mat sëkk. ndaxte si arrêté yu bees yi nii dafa créer lu ñu wax ay comités régionaux donc même le ministre bi démb sax dafa validé nii nii danañ def ay atelier ak ay séminaires yu bëri si gox yi pour gën a expliquer boulanger yi euh, doxaa nu ñuy doxalee loi ak degré yi parce que aussi ni ki dañuy wax ne ku nii la censé ñu la loi loolu dëgg la waaye quand même nguur bi jël ni ah sagam am naa loolu sax mais damay gën a waat ñoom jël nañu engagement ni danañu dem ay séminaire gën ñoo expliquer maanaam boo waree ubbi boulangerie ah non foo war a jaar bu ñu ko waree tëj ñu war def booy waree a jaay nooy defee formalisation entre ce livre. mais nii tey loolu bu ñu ko doxalee dina am boulangerie yu ñu tëj. mais forcément il faut que boulanger yi aussi dem defarwaat parce que ma jox la exemple tey am na boulanger bu ubbi fi investir 50 millions. Hmm. beneen boulanger bu ubbi foofu investir 5 millions wala 10 million jël ay occasion ñëw di jaay mburu mi 100 francs ki jaay mburu ki def mburu jaay mi cent francs c' parce que su dee mën na jaay mburu mi 100 francs c' est parce que dafa tegul ci yoon. d' accord n' loolu la bëgg a éviter ñu ni kon léegi même livreur bi kenn bañul livreur am livreur bi dana am mais livreur dañu am lu ñuy wax formalisation man da ngay am contrat de prestation ànd ak boulanger bi. parce que aussi kenn mënul liggéey suñu réew aussi te amoo kayit. merci il faut nga am kayit am contrat am yooyu yëpp. donc loolu yëpp dañ ko dañ ko dugal ci affaire bi daal. merci beaucoup monsieur euh, Gaye on passe euh, à la page publicitaire et juste après.